ñoo nekk ci train express régional démb ñetti train rek ñoo doon daaw ci suba gi liggéeykat yi ñoo dem ci gëraaw liggéeykat yi ñoo mer ba mara détail yi journal bi nee na ñi nga xam ne nag ñooy responsable yi nekk ca secteur maanaam kilifa yi ñoom nee nañu wàllum sabotage moo am yéene kaay gi nee na liggéeykat yi li nga xam ne moo leen naqari doxalinu directeur général ba di Patrick Tange loolee moo leen naqari ndax dafa am benn jigéen bu ne ëmb na ba toll si juróomi weer ñu daal di koy dàq journal bi nee na la ñu koy tuumal maanaam dafa jëfandikoo bi nga xam ne moom lay liggéeyee dafa yónnee liggéeykat yi ci lu jëm ci seen wàllum revendication yéene kaay gi nee mëti ñi ngi moomee daat nay wax nag lu mel ni xeme ki nga xam ne moom la soxor fu ko waaye nat daana koy passé ak manque de respect bi nga xam ne am na ko jëmale ko ci askanu Sénégal yéene kaay gi di xëy di ñu xibaar naan ñu en tout cas li kër gi nga xam ne mooy SETER maanaam jamono ji sagar ma nga fay xeeña fi bu mag jamono ji moo ndax am boo xam ne ingénieur la tudd Fatima Diop na la taxoon ñu ko directeur général bi moo ko joxoon ab téléphone am ngir nag mu daal di ko koy réparé la ba mu ko munta réparé loolee moo tax ñu daal di koy dàq yéen kay gi ne nag ka nga xam ne moo nekkoon directeur juridique ba di maître Yamar Sambo kookee dañu ko dàq ndax nee nañu dafa manqué solidarité jëmale ko ci directeur général bi journal bi nee na responsable comptable ba di Lamine Camara moom dem nañ ko dàq ginnaaw bi ñu ko joxee lu toll si juróom benn ci demande am ba kër gi di setter moo tax tey ji suba maanaam réunion crise moo am réunion de crise tey ji suba et cetera yéen a kaay gi la Soleil bàyyi mbir moomee wax ci jëm ci wàllum mbay mi njiitu mi di président Macky Sall wax ne campagne agricole bi lu toll ci cent milliards danañu ko si dugal yéen a ñu xëy fekk fa maître Abdoulaye Wade ci xët mu njëkk ma daan wax ne ay jamono amoon na ay moyens yoo xam ne mënoon naa jot si nguur gi jaarale ko ci wàllum violence waaye doxi wutoon noo ne jamono ji nag li ma ngi ci yéene kaay gi di enquête yéene kaay gi di sud du quotidien xëy duñu ñu en tout cas li am ba des daal procès appel Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang 29 milliards yu yi nga xam ne jàpp nañu ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril ñu tëg ma la ak Massata Samba ak Mamadou Niang mi nga xam ne ñaari député yeewi askan wi lañu ñoom tim ñu war a naka yiy ci seenub dogal te ñooñee bu ñu leen daanee seeni mandat député dañu koy moo tax Sénégal ma ngi ci sous haute tension tension ñu xëy fekk fa yi wax ne projet bi nga xam ne jamono ji moo am diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye li nga xam ne moom la ci gars yi jublu mooy fexe ba éliminer Ousmane Sonko ci élection présidentielle waaye nag na leer ne du ñu leen ko yombal yéen kaay gi di Direct News ñu xëy fekk fa Abdou Aziz Diop muy wax lan moo tax Macky Sall di nekk candidat ci élection présidentielle 2024 Pape Moudou Fall directeur de l'emploi ci biir journal bi di Direct News daan wax ko ci bopp réewum Sénégal ci élection présidentielle 2024 yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa njiitul parti Rewmi di Idrissa Seck war naa wax ni suba ci ajuma ji waaye am na ñetti mbir yoo xam ne ñoo nga ciy xaar Idrissa Seck ëllëgëm ci bopp conseil économique social et environnemental ak lu jëm ci wàllum candidature ci élection présidentielle 2024 ak lu ñett yi la yoo xam ne Idrissa ci xaar a kaay gi de la xëy di ñu xibaar naan ñu noppi gi Macky Sall noppi ci lu jëm ci candidature ma loole nag jaaxal nañu bare bari ñi nga xam ne ñooy ay allié ma xamuñu ba xam Macky Sall day samp ndëndam ñi nga xam ne ñooy opposition bi dara leeru leen si ñi nga xam ne ñooy société civile bi ñoom tam xamuñu ci dara ñi nga xam ne ñoo nekk biir APR ñoom tam xamuñu jamono ci ba xam Macky Sall day samp ndëndam maanaam ci élection présidentielle 2024 waaw wala déet waaye noppi gi ci Macky noppi ñu bari loolee da leen na diwaanu Tivaouane Alioune Badara Mboup dañu ko jàpp mook ñeneen ñoo xam ne ci Pastef la ñu bokk mook ñeneen ñoo xam ne ay activiste lañu ñaari weeri kasu lañ leen tëj yéene kaay gi nee na loole tax na Guy Marius Sagna ñi mu àndala ñoom nguuda Mboup démb naqarlu nañu ko ba fa naqarlu yem ndax nee nañu ñii nga xam ne ay Pastef lañu dëkk Tivaouane dañoo ñaanoon manifestation boo xam ne dañu ko autorisé mu waroon a jeex bu 19 heures jotee waaye ba ñu demee ba 18 heures 30 ñuy lire seenu déclaration fale leen ne téegiwul ñu leen di dugal ci kasu bi yéen kaay gi de la Tribune ndaxëy naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall def na mani nam maanaam médecin après la mort ginnaaw bi nga xam ne moo amoon fan yi ñu génn diggante nappkat yi dëkk Kayar ak nappkat yi dëkk Mboro ba am kenn koo xam ne ñàkk na ci bakkanam Macky Sall toog na lu toll ci fukki fana docteur yi yàbbi te Macky lam ca wax mooy na ñu ñi nga xam ne ñooy